fan ci weeru octobre ci la ñuy amal ubbite juróom benneelu édition forum Galien Afrique thème bi ñu tànn ren nag ñu ngi ko jagleel feebar yi nga xam ne du wàlle ak pexe yi ñuy teg ngir xeex yooyu le feebar nga xam ni faatu yu ñuy nemmeeku ci àddina bi téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróomi feebar yooyu moo ko waral. moo tax ren ñu jël boobu tem bañ foog rek ni ñun feebar yuy walla tey rek moo ñuy lor mais feebar yu bees yooyu si xam ni beesul yàgg na fi mais nit yi ko waroon gëstu. ak moyens yiñ ko waroon jagleel ñu mun ko confirmer ñu koy woowee maladie non transmissible mooy feebar yoo xam ne nit du ko wàll nit en direct mais sa jëfin sa lekk sa naan sa bañ a topp lii médecin yi joxe comme conseil moo la koy jural. ci xeex boobu nag ndaw ji am nañ ci wàllu yi loolu moo tax ñu jagleel leen ñaari fana ci bile forum. dañ gis ne tey Sénégal si wàll jàng bi lépp li nga xamante mooy wàllu. Euh, malnutrition bi xaw na fi tumuraanke école yi boo xoolee ñu bëri jànguñu euh, tension à école moo tax ñu daal di waxtaan ak waa ministère éducation nationale pour xool naka la ñuy def ba xale yi nga xamante ne ñoo ngi si école yi jàng la mooy hypertension artérielle jàng la mooy diabète ba nga xamante ne xale yooyu bu ñu leen waajalee ñoom bu ñuy màgg dañuy màggaal ay comportement comportement sain ci loolu ay ndaw étudiants yu jóge ci dëkku Afrique yu bëri teewe woon nañu boobu le forum. man mii pharmacie laay def dama spécialisé wu si wàllu officine amuñu industrie wàllu gëstu bi di recherche am nañ si ay jafe-jafe gëm naa ni jotaay bi daana tax ñu am ay pexe ngir saafara lu ni mel. trouver des voies juróom benneelu édition forom Galien Afrique dinañ ko amal Sénégal li ko dale ñetti fan ba juróom ñaari fan ci weeru octobre forom bi nag dina dajale ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum wér-gu-yaram ñu wax ci waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne Afrique mu ngi koy jànkonteel ci wàllum wér-gu-yaram